foo ma sa bëgg xam lu manqué ci réew mi demal kër Sëñ Tuubaa fa koy fekk foo ma sax bëgg a xam lu manqué demal kër Sëñ Tuubaa foofu nga koy fekk xaalis moom kër Sëñ Tuubaa képp koo ko mën a fekk ñu koy yëkkati milliard di ko joxe addiya amul faneen loolu nag la sëñ Fallou waxoon ne xaw ma tool yi nangu xol yi nangu laa xam moo ko waral boo amul loo un milliard dana ko joxe man xam naa loolu barki dem wax na ne moom moom su amoon lu ëpp milliard dina ko joxe wax naa ne bu fekkoon ne rey nit dagg na ni ko Cheikh Anta defoon dana ko def doomam. nit nag pas-pas foofu la mën a toll. sëñ Abdou Lahad dana woon murid yi ku defal sëñ Tuubaa murid yi lay fay waaye ku defal sëñ Tuubaa murid ku defal murid yi sëñ lay fay waaye ku defal sëñ Tuubaa murid yi lay fay. li mu def defal ko Massal defal ko sëñ Tuubaa du wax ne mag Sall moo ko def waaye état Sénégal moo ko def. état senegal moo gis ne sëñ Tuubaa am na mérite bu ëpp lii mu def ko fi te nañ xam ne Masaalikul Jinaan sëñ tubaa moomu ko jumaa yi suñu borom la subhaanahu wa taala mm-hmm. jullit